maa ngi fii euh, di représenté service d'hygiène di gunge maire si opération ñu commencé léegi am na euh, ñetti semaine si marché yi yooyu la ñu kon ni si garage euh, Tata yi fii Parcelles Assainies donc opération bi opération de désinfection pour éliminer doomu jàngoro bu ñuy wax coronavirus donc ak yeneen jàngoro yoo xam ne mooy mun nañ lor population bi loolu moo tax ñu ngi fii si maire bi ànd ak maire depuis boobu léegi benn avant vraiment feebar bi déclaré ñu ngi ànd ak collecteurs municipaux yi donc loolu moo tax ma euh, opération de désinfection bi dañ koy amal si communes yëpp waaw si communes yëpp du euh, benn lieu même si hôtel yi dañ koy def si kër yi aussi dañ koy def actuellement am na brigade yoo xam ne bi euh, pire pémir boo xam ne actuellement mu ngi sur le terrain di désinfecter ay kër yoo xam ne moom tey di dafa am ay cas suspect ak cas confirmé uniquement pour viser éliminer virus bi si kër yi parce que euh, virus bi du xex bi féetewu si faj uniquement dafa fété uniquement prévention donc le euh, euh, docteur di faj ñun tam ñu ngi si grand docteur pour uniquement tam éradiquer virus bi ci côté kër yi côté lieu publics yi. ndimbalu service d'hygiène major Alla Ngom jéme a représenter représenté ko ñu nettoyer bale gare routière tata yi parcelle désinfecter ko décontaminer ko parce que dafa am solo parce que fi quand même concentration de personnes tous les jours comme que le dimanche la kenn liggéeyul ñu ne décontaminer désinfecter permettre quand même de euh, faire bi bien là. donc nous vous remercie service d'hygiène et on va répéter si vous parce qu'on pense que tous les dimanches vraiment à chaque fois de besoin tant que le service d'hygiène est disponible on sera là vraiment pour mettre les produits les désinfectants à disponibilité nous désinfectons, parce que aussi donc c'est vrai qu'il faut respecter les mesures barrières mais parmi les mesures barrières aussi nous décontaminer nous désinfecter, dina solo parce que nous ñi nous lundi au samedi dimanche nous nous nettoyer nous désinfecter Nous aussi dina tax ñu nous Nous donc nous nous ngi présence service d'hygiène une disponibilité à toute épreuve donc nous avons Marché, dimanche qui passe, on a fait tous les quatre marchés. Donc sur deux dimanches, on a fait tous les quatre marchés. Le euh, week-end c'est la fête, mais après la fête, on reprend encore. Donc, euh, Inch'Allah, sur les week-ends, il y aura des opérations. Les lieux de culte aussi, par programmation, on a démarré. Donc, on a fait une euh, euh, désinfection, mais on les a programmées avec le service vraiment. a fait un calendrier, on a décontaminé, a désinfecté. Donc, on a, on a, nous avons on donc nous avons donc euh, ñu ngi consulter ñëpp bu ñu paree def calendrier bi rek jox service d'hygiène ñu tàmbali école yi nag mooy priorité bi dañu bëgg vraiment à part de leen ñu jublu ci école yi parce que on est en train de nettoyer de balayer pour préparer la reprise des élèves fekkee dinañ confirmer incha allah le juin